sëñ Modou Kara bi ma ko xamee léegi ah lu rafet laa gis mu di ko def nit kuy def lu rafet nag dañ la war a bàyyi nga def li ngay def ah njuumte nag mënul ñàkk doomu aadama day juum sunu borom rek moo dul juum muy yàlla. waaye man li ma gis avant tout balaa lii di xew moo tax bëgguma sëñ sëñ bi jóge fii naan dañ fiy jëlee léegi dañ def léegi nan bàyyi sëriñ bi mu liggéey. lépp rek tegee ci yoon ndax bu fekkee dëgg rek kay dëgg lii dëgg moom na xam ne mooy dëgg rek. li nga xam ne li ci gannaaw dëgg yëpp nag ay caaxaan la bu fekkee loolu dëgg la ah baax na bu fekkee leneen la itam lu bokkul ak dëgg it ba tey yoon def li nga xam ne mooy liggéeyam rek loolu mooy seen xalaat waaye l'essentiel moom euh, li nga xam ne mooy dëgg moom buñ ko jël di ko defi leneen. ah éducation moom dafa baax si xale parce que xale moom yar lañ si xam parce que léegi dëkk bi moom dafa doy waar parce que da nga gis xale yi léegi ñu taxawaalu rek. dégg naa bañ ko ba mu ko daree def ak léegi yàgg na quoi ëpp na ay 10 ans yooyu noonu boobu léegi xooluñ ko. ñu ñëw ba heure bi ñu doo koo lijjanti tamit affaire tamit am na lu mu ndurool tamit non euh, affaire éducation moom moo demee noonu même prison rëbës bi sax da nga gis ku génn baax ku génn bon am na am nañuy sant bu baax sëñ Modou Kara am nañu sant bu baax ñi si génn baax ñu sant bu baax ñi si génn bon nag ñoom ñooy ñooy nekk di wax fii ak ak i jaxase yooyu noonu waaw mënoon nañ ko ñu waxtaan ak moom rek ñu jéem ko organiser buñ ko organiser ba ñu waxtaanee ba jubóo loolu moo doon gën sax comme que moom seetaan ay vidéo daal ñu ñu ñu gis ñu ne am na yi xale yi ñu fi defar mënoon nañoo waxtaan rek ñu xool nu ñu déggoo rek moo gënoon a rafet quoi. man de su ma sañoon comme que am na ñu siy génn bu baax moom na sëñ Modou kaa dem collaboré wu ak état bi ñu jëm xool nu ñuy defee benn benn benn benn cadre de redressement pour jeune bi. parce que baax na si trop am na ñu bëri ñu bari ñoo xam ne ñu ngi doon sàcc war ñu ngi ñu ngi si lu bon mu jëlee leen fa. am na ñoo xam ne tamit ñu ngi am def lu bon mais ba léegi mënuñu bàyyi mm-hmm. ñoom ñooy daj lu métti ji ñoo xam ne dañu dañu yóbbu si cadre euh, redressement bi mais ba léegi nanguñu baay ñoom ñoo gën a ñoom ñoo gën a subir kii conséquence yi